Sénégal mbokki Gambie mbokki amateuru lamb yi Faye Birame production promoteur bu mag bi moo woote lëkkaloo ak Amadou Diallo ak Babou Sow ñu fas yéene tëgg lamb ju rëy jàpp ko le 12 ak le 13 février foofee ci stade bu Amdalaay muy mbapat moo xam ne million 200 la ñu tegal mbër ya ma ne ah mbokki amateur yi bës a ngook ak lu bës a ngook amateuru lamb yi bi bës ku ko tardé tardé nga lu rëy rax ca doole ñu jël animation ba dénk ko Mbayang yi namoon Mbayang Loum yéen ñi namoon a tooyal Amdalaay le 12 ak le 13 février ci 1 million 200 ya ñu ànd ak Faye Biram production wàcceeti foofu ba mu wàcc saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa Lac de Guiers numéro ak Eumeu Sène ñaari mbër yeeg seen combat revanche boobee la sunu lamb xëy fësal ci xët wu njëkk ba la mu ca xamle mooy yéene ji Lac de Guiers am ngir daan Eumeu Sène bëgg gu yéeme bu Lac de bëgg a daan Eumeu Sène ba toog ci kollam loole la journal ba xëy fësal li ni mel nag moo waral journal ba xëy ne Eumeu Sène a nga jëm ci combat bu compliqué le journal ba xamle mooy combat boobee ñu jàpp 4 avril nar metti ci moom ba fa metti ko waral nag mooy ñaari mbër yi xamante nañ bu baax bëre nañ benn yoon bëre ñaari yoon bii mooy seen ñetteel bi yoon seen bu njëkk ba gis nañ na mu demee ndam demul ndam dikkul seen ñaareel bi combat ci la Eumeu Sène am ci kawam ndam ba léegi Lac de Guiers mu ngi koy contesté bi la ñetteel bi confrontation ku jàpp ne day yomb doo mbokki mbër yi muy estaafu Lac de estaafu Eumeu Sène xam nanu jàpp nanu gëm nanu combat bi du yomb li moo waral ñu njort ne combat bi war naa xàtt ci ñaari mbër yi waaye envie bi Lac de Guiers am bu fekkee génn lañ ba teg seeni sart ñoom daal lañu bëgg mooy làmb Kaolack jëm ca kanam nanu ko bëggee nag mooy ñu promouvoir làmb ja promouvoir yeneen xeeti làmb ya mooy lit goro kërëmeen baak lit olympique ba rax ca dooli ñu ne dañoo bëgg formation ak encadrement ci mbooleem ñi yëngu ci làmb beneen sart ba mooy dañoo bëgg ñu mettre sur place ay comité départementaux ay CDG lañu bëgg ñu sampal ci Kaolack rax ca dooli ñu ne làmb ji bëgg nañ dugal ko ci nag mooy création ligue yi la xeeti doléance bokk na ci li ñu teg ca taabal ba ngir équipe bu bees bi mën caa teg bët Mame Cor Faye ma remplacé Bira ca équipe ba gis nañ ca ñu miin làmb ak ñoo xam ne ay wàcc bees lañu ca wàcc bees la journal ba xamle mooy Mamour Cissé la Assou Kanté Mbaye Diallo ak Waly Sène ña seen seen ba ca nekkoon ca daan doxal ku ci mel ni Abdoulaye Diouf la maam si muy Diouf maam jëmbaan ak laay njomboor ca wàcc bees jàllee mu def ca MMA le journal ba xam ne mooy guy gi lekk na coow rëg-rëg mii ñu gis ak la mu woon alee guy gi bu yeboo yokku cere dolli ñeex te xam ne gone gi fawul fawlawul bu yeboo yokku entraînement te xam ne rëg-rëg mii ku ko am comme adversaire faaw nga tiit ña nar tiit sax mooy ña mu taseelaat ca MMA bu dee layti seen agent la mu xam ne mooy proposé nañ ñetti adversaire yi la ñetti adversaire yépp ci mois de mars lañ ñu ko proposé mbokk ñi mu bëgg a jànkonteel bokk na ca Moussa moom xelam mi guddi yi Moussa bu yarax moo ci nekk te moom lay rëbb ba ñu ko ne Moussa mi nga soxla digganteem ak Ama Neex léegi mu taxaw la mu xamle mooy loolu du combat sama diggante ak moom mooy combat ba dama ne sama combat ak Moussa moo dàq sax diggante Modou Lo ak Ama Baldé promoteur bu bëgg gis combat bu réy tëggal bi le bu boobaa Moussa dana gis lu wexaat jërë ngeen jëf Sénégal mbokki Gambie mbokki amateuru lamb yi Faye Birame production promoteur bu mag bi moo woote lëkkaloo ak Amadou Diallo ak Babou Sow ñu fas yéene tëgg lamb ju rëy jàpp ko le 12 ak le 13 février foofee ci stade bu Amdalaay muy mbapat moo xam ne 1 million 200 la ñu tegal mbër ya ma ne ah mbokki amateur yi bës a ngook ak lu bës a ngook amateuru lamb yi bii bës ku ko tardé tardé nga lu rëy rax ca doole ñu jël animation ba dénk ko Mbayang ak Mor yi namoon Mbayang Loum yéen ñi namoon Mor Ngom namm lamb yéen a bi foofee Abdalaay le 12 ak le 13 février ci 1 million 200 ya ñu ànd ak fay biram production wàcceeti foofu ba mu wàcc